bu fekkente ne question Birama bi mu wax ne ñun dañuy wax chiffre di wax chiffre di wax chiffre Birama tàmbaliwuñu ci chiffre ah peut-être loolu moom moo accroché les journalistes mais ñu dañoo wax ne état bi na dàqal coupure internet ndax su ko dàqalu benn mu ngi lor. sénégalais yi. Mm-hmm. mu ngi lor économie bi et les perte son inestimables loolu lañu ñu wax mu des léegi. soo jëlee cas France bi amoon nay émeute du foofu rek fu nekk amoon nay émeute yu rëy rëy waaye mosoo gis benn état bu sérieux c'est pas manque de moyens l'état si il veut il peut faire des censures et c'est encadré par la loi alors donc état bi amul lenn luy justifier coupure internet bi muy def du émeute du dara France même bi ñuy def restriction ci Snapchat sooy xool c'était vraiment régulé et foofu il y a une autorité judiciaire très puissante alors donc soit ñun dañuy jàpp ne on est du tiers monde de par nos esprits laa bëgg wax parce que sama bopp laa koy boole moom mooy dañuy jàpp ne ñun daal tout s'explique tout s'explique tout tout s'explique da ngay def lu jaadoo pare nga mën koo expliquer donc euh, c'est ça véritablement le problème euh, je sais pas si j'ai oublié une de mais principalement loolu nga ma laaj émeutes yi Mm-hmm. ne justifie pas et encore que et encore que Sénégal li fi andi tension ñëpp xam nañ ko te sëñ bi yow wax nga ko li fiy andi tension ñëpp xam nañ mooy li nga waxoon sànq politique ok maintenant est-ce que politique yi mënuñoo noppal dëkk bi su ko defee liggéey bi dox internet bi dox lépp dox